alhamdulilah wa sallallahu wa sallama wa mawlana wa barakaatu mbokk yi ñoo leen di nuyu di leen ziyaara yéen mboolem groupe presse yi nga xam ne yéen a fi teew yëpp fii ci Touba Ndigal ngir ànd ak ñun euh, fàttaliku gi nga xam ne Cheikh Abdoul Fattah sunu jëwrin Euh, mi ngi koy dundalee fii ak di ko fàttali ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo gane woon àdduna ci li gën a lëng ci taarix muy fukki fan ak ñaar ci weeru wii ñu nekk muy weeru gàmm donte taarix saxal na yeneen ak yeneen taarix moom wuute la baaxoo waaye euh, mbooloo ci ay jullit ñi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne euh, sama xeet wi duñu dajey mukk ci ak Euh, kon bis bii nga xam ne mooy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu bis la boo xam ne mbooloo ci jullit ñi fu ñu nekk ci faccant ko dañ ko dundal a Cheikh Abdoul Fattah di ko dundal fii ni nga ko waxee ci ndigalal jëwriñam a Cheikh Aboul Baraka Mbacké waaye ci ndigalal jëwriñu yoon wi yëpp muy Serigne Mountakha Mbacké yal na leen yàlla yàggal lool guddal seen fan ci wéral seen yaram euh, mu mel ni kii li nga wax sànq rek bu gàmmoo euh, daa am ay njariñ yu ci ab jullit war a yëg jariñoo ko ci la ci ëpp solo mooy mu xam ki ñuy fàttaliku kan la mu xam borom bis bii ñuy nekk di ko màggal kan la mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax day koo xam ne yàlla moo ñu ko joxoñ yàlla moo ñu ko joxoñ ne topp leen ko ca bu ngeen ko toppee da ngeen jub wa in tuti'uhu du bu ngeen ko toppee day da ngeen jub mu waxaat ne moom moom alquran ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bu ngeen bëggee yàlla ci mi dëgg ci yéen da topp bu ngeen bëggee yàlla ci mi dégg ci yéen da ngeen ma topp muy bunt bi nga xam ne kenn munta àgg ci yàlla kenn munta jëf lu neex yàlla kenn munta jëf lu yàlla gërëm te jaare woo ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam munta nekk maanaam kenn du duna ko ñukk fee kenn du duna ñukk fee yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sàkku fenn lu baax ci lislaam man ko fa am ci lislaam nag moo am lu baax buñ nee kon la neen du mat a wax mhm. kon jullit bu nekk war a bàyyi xel nag kooku kon moom la ñuy fàttaliku kooku di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu yàlla royloo yàlla dañoo wax ne roy leen ko roy leen ko laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana nee na ku tedd kii di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day am ngeen ci royukaay ju mat dëkk royukaay lu rafet nga ne kon moom mooy royukaay bu mag bi moom mooy ki nga xam ne it mboolem lim ñu digal dañ ko war a jëfe lim ñu tere dañ ko war a bàyyi waruñ ci am ak seetantal waruñ ci am ak seet waruñ cee am am nuñ ko gisee warta am déedéet warta am wa ma ataakum rasulu faqudu wa ma nahaakum anhu fantahu yàlla nee na lépp lum leen digal lu leen leen nii jàpp leen ca lépp lum ne leen nag bàyyi leen loola moom bu leen ci ak nattable moom yonent bi sallallahu alayhi mooy nattuwaayu dafa bokk ci nattuwaay yi ab jullit maanaam ak mbaax munta am fenn cam génn ca moom sallallahu alayhi nga xam ne kon ku nekk war na koy bàyyi xel bu baax a baax ci gis ne da ngaa war a yëg loolu sa diggante ak moom. moom moom du yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag euh, dafa am ay xàq yu dox suñu diggante ak moom yu bëree bëri waaye des na ci indi yenn. ci waxtu yi bokk na ci yooya mooy dañ ko war a gëm. dañ ko war a gëm gëm goo xam ne euh, du am na ak ak ak ak deng deng da ngaa war a gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yónni. da war a gëm ne lim ñu indi nañu yàllaa ko yónni yëpp yàllaa ko yónni. Mm, mm. loolu mooy lan mooy alxuraanul karim mooy sunna li alxuraan indi ak ak na lépp ñu gëm ko gëm na bis yawmal xiyaamatul akbar am na. Mm. gëm na jaam ñi dañ leen dekkil gëm na dañ leen tegal ay balance atte leen seeni i jëf. gëm na siraat des na ko jéggi. gëm na am na kër goo xam ne ña doon jëf lu baax fa la ñuy dem mu na gëm na am na kër goo xam ne moom ñoo doon def safaan ba fa la dem muy sawar maanaam yooyu dafa war nekk yoo xam ne nit ko du ko war a gëm gëm goo xam ne du am ak ak ak déng-déng moom mooy mooy ma mbëbësal ak gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lépp loo xam indi lañu ko mhm. ñaareel bi da war a gëm ne moom la yàlla def mu nekk ki gën ci mbindeef yi ki gën ci mbindeef yi amul kenn koo war a dendaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul amul kenn koo xam ne danga nga war a da war a tudd yonent bi tudd ko ca wet ga ci ak tëkkalee dendale amul amul amul morom moom moo càppaaccu dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki amul benn moroom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la ñu Sëriñ Tuubaa wax waxu akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mithlu qattu lam yura walan yura fi chemi lam yura walan nee na ku tedd kii di sallallahu moo gën moo gën a mat ñëpp yii ab bind moo ko gën ñëpp ay jikko moo ko gën ñëpp mm. nee na ku mel ne moom mus la am ca du am mm. wal mislu ku mel ne moom xattu ba àdduna tukki lan yuraa musee su ko gis mukk mm. ca nag walan yuraa ca dee su ko gis ba faw waaw kon kooku nit ki da ko war a gëm maanaam amul loo fonk fonk sab sëriñ loo ko naw naw loo ko bëgg-bëgg bul ko tëkk léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay faral di wax naan rawatina sunu sàng bi nag Serigne Touba tooñ Serigne Touba moom ak umpale ko ak réere ko mënut a weesu dend le ko yonente bi sa mënut a weesu dend le ko ak moom loolu moom ak tooñ ko la ak ak ak ak ak ak weddi ko la it nag weddi ko la ndax moom moo wax ne man danna nii gayra xadimin mustafa fa inna nii axdimuhu bi mustafa axdimuhu ila duxulil janna daaril qoraar yi wala munaa wal minna nee na ku ma jorte kenn ku dul ku dul euh, euh, liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi lay xamal ne man ki ma doon mooy liggéeykatu yonent bi mm-hmm. kon moo présenté boppam léegi ne yow boo ko bëggee ne ko doonoo ko bëgg koo wax la neen yaa ngi weddi sëriñ bi yaa ngi weddi sëriñ bi keneen liggéey bi amul dama ci duma ma duma du ma jël retraite du ma noppalu hmm? mm-hmm. dallu damay dina ko liggéeyal ba may tàbbi aljanna ax di moo ilaa doxoolil janna daal xarala wala mun naa wam kon loolu a jullit da ko war a gëm gëm ne kon yoonu sax mooy càppaaculi gi lam yabdu mithlul Moustapha hmm? lu ci tegee Mouhamad kooku rek la wax Mouhamad kooku rek la wax hmm? lam yabdu mithlul Moustapha Mouhamad mu ne sirran nag wa jahran fi baraaya samad sëriñ Tuubaa ne ku mel yoon sa sasam mus sa feeñ nga ne ko ndax feeñul ca fekk ne daraja ji rëy na lool ba àgg ci daraja yonent bi waaye dafa dafa nëbbu sirran mu ne koo xam ne gaa yi xamul ba mu ne déedéet amul de mu ne wa jahran mu ne du ku feeñ ak ku nëbboo ci yem kenn ku yem moom daraja amul hmm? muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati nee na muhammad mi mu ne wax misaaluhu ku mel ne moom lam yaati musta am musta ñëw fii ma mata ci jamono yooyu weesu yëpp wa abadan ba addinay tukki it laa ku mel ne moom du dikk yaa kon ku mel mel ne moom dikk dama koy nett lu bëree bari ndax day bayit yu ma neex ca euh, day mantragal li muy wax ci Serigne Touba yi ne kenn du tëkkale yéen ak kenn daa am ku ñuy wax Musalimatul Kadab Musalimatul Kadab euh, yu benn yonent sam dund daf na woon Muhammad sallallahu alayhi wasallam day ab yonent nga d'accord na waaye man it yonent laa yonent nga waaye man yonent la euh, di ko diir mbagg mu xam monsieur mu faatu ba am junni at ak ay téeméer mu doog a feeñ junni at ak téeméer mu doog a feeñ yoon sa ndo euh, Serigne Touba mhm. jàng ci taarix monsieur le maire daal diir mbagg bi sallallahu alayhi wa ko lu Moussa wax kenn Sëriñ Tuubaa wax ko lu mos kenn loolu moo leen mooy dane dane dhalla dhalla musaylamatu xiina jaara man fi sama wal ardi laa yu jaara dillata man wastal mala taxawata wa baala uryaanan wa jahran darata Sëriñ Tuubaa ne musaylamatu kadaab day torox na mais mm-hmm. ne ko loo ko tax mu torox mu ne dafa dir mbagg sama sang ba nga xam ne waa asamaan ak suuf kenn du ko dir mbagg man fi sama wal ardi yu jaara ne musalimatul am ne toroxtaangeem ja ko dal la ko yóbbu loolu toroxtaangeem ja ko dal ni mu koy misaale mi ngi mel ne ku fekk mbooloo almala mooy mbooloo moo xam ne mënoo wax ni fii la tàmbalee wala fii la yem mbooloo mu dul jeex nee na ku fekk mbooloo mu dul jeex nga dem fa summi ko def mu neen ci digg mbooloom doy na gàcc tuur fa ndox ñu jàkkaarloo yow doy na gàcc nee na ngelawal fa ngelawal xumb a tart ci loxo arab ya ci làmmiñu arab mooy ngelaw lu am kàddu mu ne wa jëxëran nag wa jëxëran tarata maanaam mu mu ngelawal ngelaw ñëpp yu dégg ba noppi nag dem fa woon ak nee na gàcce yooyu koy dal koo def ci mbooloo nee na gàcce goo raw dana day dal musalmil kadab mm-hmm. mel ni ma ngi wax suñu bàññee xuja balla ne ko mbàkke yaakaaru moon ne sa xalima dana yuut lii mu ne ko ku bañ sama sang ba doo xam sama teggini xalima dañoo nag léegi kooku kooku kooku fekke woon loolu mm-hmm. maanaam junni at ak téeméer mu gis ne kii doon diir mbag yoon mu wax ko lii mm-hmm. kooku nag di ko di ko dend leeg sallallahu alayhi wa sallam tooñ ko mënu ko rëy mënu ko wees tooñ ko ko wees ndax bu la ko fekkee moom dara du ko jar ci yow kon loolu it kon dañ ko cee war a dañ ko war a bàyyi xel mm. euh, dañ ko war a bëgg it mbëggeel gu am ab ab limite mm. salaa salaam moo la war a gënal ñëpp nee kenn ci yéen ngëm yàlla du mat loolu ne dama ko gënal ndeyam gënal ko bàyyam gënal ko ñu suuf ñëpp gënal ko jëm boppam Seydina Omar na ko man de yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yaa ma gënal nit ñi mm-hmm. waaye li olof yi wax sama boppam la gënal dug bañ naa la mu ne Omar sa ngëm yàlla du mat mukk lu ni dama laa gënal sa bopp Omar ngëm yàlla du caaxaan Omar na ko kon yaa ma gënal sama bopp mu roo ko jàpp loxo naan ko nii rek la mën a dem yow Omar nii rek la a demee yow mbëggeel googu kon ab jullit ko war a dencal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dencal gu réy réy kooku nag sunu sàng ba Serigne Touba radiyallahu anhu doon ci sëkk misaal doon ci sëkk ak mandarga ndax li ñu wax li nit war a naturellement li nit war a am ci ay yëg-yëgi bëgg muy ak njaboot ay mbokk ay waa kër Sëriñ Tuubaa nee na yoon dafa fees sama xol dell ba amul lu am espace espace bu widd bu yi mën a am ci mbëggeel maanaam yoon dell dell dell dell ab xolam nee na mooy ruuxam mooy ak dundam mooy bëti xolam mooy léppam waaw mooy léppam ne nag moo effacé mahat mahabati al muxtaar sayyidina wa bil maxaaniya wal ahliina wal walada xoola kon loolu fa mu àgg mu ne it bu yoon taxawoon ci foo xam ne dafa nar a loru deret yoon saam bu naree tuuru sama deret du ko fekki dam deret yoon bu naree tuuru sama deret njaboot duñ ko fekke wu ahli lañ bokk mu ne sama deret yoon bu naree tuuru samay doom duñ ko fekke wa awlaadil fidaau lahu abdan qadiman lahu mudkaani li sanada xooloo wax ju rëy ji deretam deret képp ku ko nangul ci ñoñam dereeti ay doomam mu ne yëpp lay boole jote ca doreeti yonent bi sallallahu bu naree tuur wees na foofu àgg na ci ne bu yonent bi sallallahu alayhi doon dox ca suuf ba dégg nar koo jam Sëriñ Tuubaa waxu ko ne damay damay àndale dégg waxut dama naan ko moytul dégg nee na damay laltaay sama lex bi dégg yi jëm ci yonte bi jaar sama kaw jàll. doomu aadama li mu gën a fonk partie bi mu gën a fonk mooy kanam. rawat na ab lex. moom la gën a fonk. sa loxo naa takk suuf amul problème sa tànk mën naa takk suuf amul problème mais seen nga partie bi lu ko takk buñ boo ko gisul nit ñi la koy wax faxasal fii faxasal fii moytu faxasal fii fii ak surtout am jàmm lu ko takk rek ñoo la koy wax ndax mooy parti bi gën a am solo ci nit. Sëriñ Tuubaa nag nee na nee na moom bu dégg naree jam yonte bi lex bi la ko laltaayal nee na bu ko jiit naray fett it du uxut day rey jiit ji day def waaye jiit maanaam lex bi lay lay taal jiit di fett xad yi wiqaayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa maa yudaha aqraba àgg na ci ne ni ngay wax nga xam ne bu lu nit rombee ku waaj nga naan ko lalal naa la jël sa kaan lalal ko wala jël sa sër lalal ko wala jël dara lalal ko Sëriñ Tuubaa nee na yoon bi bu doon dox sama lex laa koy laltaay laa koy lalal li wax laa sama lex laa koy lalal mhm. te dama wax ne ku dégg arab la bayit woowu sëriñ bi waxut ne eh, dama koy laltaayal tànkam ba waaye dallam wala wax mhm. qad yi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytahu lahadani bi fadlihi wala wax ji nim rëyee nee na sama lex bi def naa ko def naa ko muy suufu dallu yonent bi sëriñ bu doon qad yi jaaltuhu turaaba rijlihi du tax wayu yàqu rijlihi ak naalihi ñooy ñooy tolloo wasnu mhm. hm? du tax wayu yàqu waaye nee bu ma bu doon dox yoonu nee na sama lex bi laay lal taayal dàllam wa waxu tànkam ba waaye dàllam wax dañ ci bàyyi xel bu baax a baax dal ak a neexoon mënu ma gees a neexoon mënu ma gees kookoon mbëggeel gi cofeel gi jéggi na dayoo ba jéggi dayoo loolu julli bu nekk dek caa war a roy ci ak bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal ko bu wér a wér a wér nga xam ne ak bëgg Sëriñ Tuubaa bu dee dëgg ci ñun suñu bëgg yonante bi dana fës lool ci ñun suñu bëgg yonante bi dana fës ci lool ndax lan mooy ndax nim ñu ko wone nim ñu ko joxoñee lim ñu wax ci moom musu ko wax ci kenn lim ko wax su ko wax ci kenn waaw dem na banaan banaan banaan yaminu rabbi yaminu rabbi liqaa'uhu ahab ilayya min mil diyuur yadhab nee na giñ naa ci yàlla ne siyaare ji woon yonente bi sallallahu alayhi moo ma gën a loon sama kër yi ñu duyal ma ko or ba mu fees dell kër yëpp nee na gis yonent bi jàkkaarloo woon ak moom demoon siyaare ji ko jëmm ak moom moom a gën lépp moo tax mu ne ñi may téye day mën nañoo téye sama jëmm yi waaye xol beeg roox gi moom fu mu toll mi ngi siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mënuñ ko téye xol beeg roox gi mënuñ ko téye jëmm ji nag mën nañ ko téye njaare man nañ ko téye faneen waaye neen xol bi ak roox gi moom mënuñ koo téye waaw ak xol fu mu toll mi ngi siyaare ji yonent kon kooku joxoñ nañu ba léegi yonent bi sallallahu alayhi ni ñu ko war a bëggee ak ni ko war a bàyyi xel kon loolu àq la ju ñu amee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy topp ko topp sunnaam topp sunaam lépp lu ne la lii sunna si yonante bi sallallahu alayhi wasallam la nga jëm caa góorgóorlu la nga man nga jëm caa góorgóorlu la nga man du lu ñuy sàggane du loo xam ne dañ koy saboote déedéet li nga ci mën a def lépp def ko seen ko loo ci mun def sax sa ñàkk ko mën a def ba mu tax nga nga nga semental ko dama koy faral di joxe misaal ci ku munta yar ab sikkim ku munta yar ab sikkim yaroo sa ab sikkim xëy na matal sunna si yonante sallallahu alayhi wasallam munoo ko yar ab sikkim daa bokk ci yi nga bàyyi waaye nag bu mu tax nga saboote ab sikkim bu mu tax nga saboote borom sikkim daa damay faral di wax ne ñun murid ñi moom waruñoo saboote ab sikkim Sëriñ Tuubaa moom sëñ Mbay sëñ sëñ Musaa Ka ne woon ba mu koy misaal ca Euh, euh, euh, nu ñu ko waxee di njuñ njaaj ba waaw da dane ko woon da daan muuru yor yetti kaale yooyu joor rawaani yaa nga ko daa féete wàllu ndey joor bu muuraay gën a mel xat sikkim benn laas di saf laaru wurus moo ko jekk ay faas laar ab laar laar yi ñuy dàq ay weñ nee na sikkim Sëriñ Tuubaa dafa meloon ab laar ab laar kon nit ki boo mënut a yar ab sikkim it bul tax nga saboote borom sikkim boo ko saboote na bokk na bàyyi sunna yi loolu lay faral di wax léeg nga dégg ñuy tooñ mbokk ñenn ñi naan cëkkal maan yi waaw sëriñ Tuubaa daan cëkkal sëriñ Tuubaa nis bu saaxal daan sol xoola photo yi yi nga gis ko néew gis nga fi fi fi col gi àgg mooy sunna so sunna da ngay gëm ne lii sunna la boo ko mënut defee it dafa benn borom xam-xam ab égyptien dañ ne ko lu tax ngay wat si sikkim bi foo toll di wat sikkim bi mu ne sunu yonent bi mënumaa def lépp bii dafa bokk ci li ma bàyyi hmm. da nga xam ne kon nangu nga ne bii dafa bokk ci li nga bàyyi waaye nag doo ko saboté kon sunna noonu def Sëriñ Tuubaa ci boppam dundam yëpp loolu sunna la sunna la dundal hmm? lu mu waxoon nadaafatuhu kulli min allah bi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayyin kon dundam yëpp leeral sunu sant moo waral kon jullit ñi dañoo war a gëm ne kon sunu sant dañ ko war a dund maanaam topp yonent sasam ci alxuraanam topp sunnaam loolu yi dafa war a nekk àq bu ñu xam yar ci sunu bopp yar ci sunu njaboot waaye bu ñu dee gàmmu rek jàpp ne mooy lekk naan tubarkal la daal tasaaro déedéet boo fa boo jógee ci gàmmu war ngaa yëg ci yonent loo yëgul woon ci moom war ngaa xam ci yonent loo xamul woon ci moom war ngaa dolli ko ci yonent loo dolli ko ci moom war nga cee dolli ko cofeel go dolli ko woon ci moom waaye bu dee dañuy gàmm ci dundal yonent bi ba jógee fa tasaaroo ca yëgul len loo dolli ko ci yonent bi sasam an sa gàmm dëgg dëgg an sa gàmm waaw gàmm dafa awar a am jeexit da ngay yëg ne lii am na jeexit ji lay am ni nga xamee ne dolliku nga fa añ nga fa reer nga fa def fa nangam am ay yëg-yëgi dolliku yaram noonu nga war a yëgee ay ko koor bi tege mooy am na àq bu ñu ko rel mooy foo dégg aw turam danga war a julli ci moom sallallahu alayhi wasallam maanaam saa boo dégg aw turam da ngaa war a ci moom day faral di wax ne loolu jox nañu ci misaal mu rëy Serigne Touba du ko yàkkamtewaale ci am mbindam saa bu tuddee yonente sasam bay di lu jegee jegee day julli waat doo ko jàll saa bu ko tuddee rek lu bëy di julli jege jege jege jege jege. boo jàng ma fa booy jàng euh, euh, bu mu doon. noonu maanaam mooy kon julli ci Yonent ab jullit day bokk ci ay mandargaam fu ñu tuddee Yonent bi nga ne sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam nee na na ab nay dugg aljanna ñu kan mooy am na yooyu Yonent yàlla mu ne kii dégg sama tur ci julliwut ci man. kii dégg sama tur moo tax boo koy waxee nag wax ko ci kaw day baax. fi ne sallallahu alayhi wa jooju. boo ko waxee ci kaw day tax nga fàttali koo xam ne fàtte fàtte woon na ko boo koy wax ca kaw day tax am ngoo xam ne xelam demu ci woon xelam dem ci mu daal di fàttaliku daa war a julli ci yonent bi sallallahu wa sallam waaye kenn du ko kenn du ko yàkkamtuwaale loo lu mu bari bari bari na ngay na ngay julli ci moom yàlla ma ko wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon ndigal la loo xam ne boroom bi tabaraka wa taala dafa ko digal ñu war ko cee bàyyi xel bu baax a baax a baax kon yooyu mën si koo tënk ci tënk bu gàtt ci la ci ay bind yu ñu war a mën a jël ci moom bu ñuy jeexal ci jikko yi mboolem jikko yu baax yi sallallahu alayhi wasallam moo ko moo ko yoroon jikko yu suufe mosu koo jege fenn moo tax yàlla ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow daye bu dee mbaax yaa nga ca dayo ba jikko jikko yi yaa nga ca dayo jikko jikko ya yaa nga ca kaw ca topp ba ca nga nekk loolu ab jullit ko war a yëg bàyyi ko ci boo xel baax a baax ku woyof la woon moom sallallahu alayhi wasallam ku woyof la woon ku ne mën na ko yendal ci ci ci barab hmm? woyof a woyof la woon ku dëddu adduna la woon sallallahu alayhi wasallam daraan tëdd ci uh, ay bant muy muy marqué ci aw yaramam moom mi nga xam ne bu ne woon doj toog montagne màkk yi ku xam ku dem màkk xam nga way way lal jiba way lal jibaali kay fa nu sibat la tax yàlla di ko wax boo demee màkk da xam dara mu ne montagne yooyu yàlla bu yonent sax ne woon moo mu doon oor mu doon or sotti mu tëdd di di laltaayoo ab ab ab waaye naka noonu nag moom ku tabe woon yoon sam yo dañ daan wax ne bu masaan di joxe day joxe joxe koo xam ne yaakaar ne moom daal bay bàyyiwul xel ne li joxe dana jeex aw joxee nam noonu noonu la meloon nekkoon ku dëggu it nag ndax ne moom lu du feeñal lii ca ca la nekk ca la nekk ci moom hmm? nekkoon ku yaatu ab dënn hmm? ku laabiir wala kunta fardan xaliidal qalbi lan faddu min xawlik yàlla nee na ko bu doon boo naqari woon deret kon ni la saxaaba a nii du mel noonu de waaw fu mu toog saxaaba yi ñu ko ne bu ñëwee ca ci mbooloo dañ toog ci pegg ba waaye day mujj moo nekk digg ba ndax wër gi ñu koy wër mhm. nga xam ne kon melokaan yooyu nag ku lu mat a bàyyi xel na sallallahu alayhi noonu la meloon ci ay jikko noonu la meloon ci tedd nga ba kum doon suñu liñ ci ko war a góorgóorlu war koo war koo roy ci melokaan yi war yëpp xam naa ne dafa mel ni kii des na mën a tënk incha allah taala foofu bu matul ba ab laaj ñu doy loolu bu ko defee ne di ñaanal sunu sang bi sëriñ Abdoul Fattah Cheikh Fadel mi nga xam ne moom moo ñu may occasion bii e, muy mbooloo daje ci barab di fàttaliku sallallahu alayhi wasallam ñu jël lañu ci kàddu ñu tasaare ko ñu ngi ko ñaanal yàlla guddal aw fanam lool wéral aw yaram lool waaw loolu moom boo demee ci jazbul xulub e, yaatu na fa lool Serigne Touba radiyallahu anhu wax fa wax fa du bëree baree bëri ci njariñi e, njariñ ñi Euh, dundal guddi yonent salaam nee na fa ma yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu gada loolu dong de na nee na ku koy dundal yow xam def la xisaab koy dundal day barkeel say kër day barkeel sa alal barkeel sa njaboot ku koy dundal nee na mbugal du la jege. koy dundal doo texee di day bari ba àgg ci ne ku waajal aw ñam sax man taaman hayya ah, jëm waxoon képp koo xam da ngaa waajal aw aw ñam ñu indi ko fa ñuy euh, durusee fa ñuy jàngee jox ko ña nga xam ne ñoom ñoo koy ñoo ko dundal boobaa de na nga xam ne da ngay mel ne ku teewee ba dara jàppale yonent sa sam ca xeex ba waaye ku teewee oxut ca métti di wax ànd ak yonent bi muñ muñ nga ku teewee xone yi loolu ay daraja la yoo xam ne képp ku nekk war na koy bàyyi xel baax a baax kon nag lii mbir mooy kon war a xool nan koy fexe ba dundal ko ah bis buñ ne dañuy fàttali ko yonent sa sam gën jaa néew war ngaa mën wax sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin xanaa junni yoon bokk gën jaa néew allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim xanaa war nga mën a wax junni yoon waaye da nga gis léeg-léeg ñu dagee suñ mbooloo yi ba ba guddi gi jàll doo doo dégg ku ah am nañu benn benn yoo xam ne dañ koy fàtte xamuñ ne sax loolu dañ ko fàtte boobaa nag ana ana dundal ga ana dundal ga ana dundal ga wax dëgg yàlla ni ñu koy dundalee daf moo tax bàyyi xel boo ko dundalee nañ ko war a dundal nag moo tax si tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadul minnati li muazami li mu li mu li mu li muazami yow Sëriñ Tuubaa nee na dundal ko ci sunna dundal ko ci sunna mooy lépp lu wuteeg sunna nga teg ko ne la lépp lu wuteeg sunna nga teg ko ne la tanzimuhu bi sunnati ko dundalee ci sunna ni ñu ko war a dundal sunna wa yaquduna lil jannati mooy yóbbu àjjana ah <coughs> kon nag ku nekk war na ci bàyyi xel baax a baax yàlla na yàlla bool defal tawfeex eh, lépp lu ñu ci def yàlla na ko yàlla xool ci ak matam ak mbaaxam xool ko ci ay doomu adama ak jullit yu manqué yu doye di bañ koo xool sunu sunu doye dee sunu mat di waaye xool ko ci matam moom borom bi xool ko ci mbaaxam ba mu defal ñu ko yiwu ko ko dundal nam ko nam bëgg ko dundale yàlla na ko yàlla defal defal ko jullit ñëpp ñoo ngi jéglu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu